lahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim barkeb borom tubaa asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi nga xam ne ni yéen a ñuy seetaan ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ziar leen ndokkeel tey yi nag ñoo ngi fii ci Taïf Taïf nag buñ ko déggee xel yëpp lay daal di dem ci Cheikh Mouhamadul mustafa tey jii di altine fukki fan ak benn ci weeru mars atum 2019 mboolem jullit yi rawatina murit yi rawatina taalibe Daaru Xuddoos di fàttaliku bis bi nga xam ne nii Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ibn Cheikh Mouhamadul Moustapha ibn Xaadim Rasul jóge woon na ci àdduna bi dem nag euh, deeyaale ji ak boromam ci àjjana waaye di bisub ñaan di bis boo xam ne ni itam dañ ci ñaanaale mboolem ñi nga xam ne ñoo di julliti ak taalibe yi ak ñi nga xam ne ñoom la bokkal Cheikh Mouhamadul Moustapha loolu nag tax na euh, niñ ko defee ci waajtaay wi noonu lañ ko fas yéenee wéyale ci bis bi ci tasaare mboolem lu aju ci màggal gi ci plateau yu am solo yoy nga xamne ni di ay jotaay ñuy bokk ak ay woromi xam-xam yo xamne ni dañoo aju ci kër gi ku ci melni Serigne Cheikh job Taïf wala Serigne Cheikh job ndam ñu bari dañ ko koy wax di borom xam-xam bu ragneku di ko xamne ne itam ku ñime gëstu la mom lañ fas yéene àndal ci benn ci plateau yooyu kon dañ koy jox kàddu gi mu nuyo ñu doora présenter nak nag thème bi nga xamne ni mom lañ fas yéene waxtaane min iblis ashaytan rajim bismillahi rahmani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi seetaan si di fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew ñoo ngi leen di nuyu te leen di ziyaara di jiite ci nuyu Serigne Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal ko Serigne Abdourahmane Mbacke Gaynde Fatma Serigne Ahmadul Mokhtar ak ci dëkk bu yu am solo yooyu kon dañuy daal di sóobu nag ci waxtaan wi euh, ngir jëkkante ak waxtu waxtu wi xam naa laaj bi jëkk mooy dëkk bi nga xam ne nii moo di Taïf ci xam lañ bëgg a waxtaanee di dëkk boo xam ne nii Cheikh Mouhamadoul Moustapha moo ko sancoon ci atum 1939 wala 40 xam naa di nga ci dikk lan moo taxan mu sanc ko kon laaj bi mooy taarixu Taïf lan nga nu ci mën a baaxee. jërëjëf Serigne dëkk la boo li tax mu sanc ko itam ba mu koy sanc dafa woo Serigne Ousmane Samb Gombani bisu dimanche daal di koy wan àll bi fi mu féete ne ko tubaab bi natt na ko ba jox ma ko dama faa bëgg a àggale nag mébéti Serigne Touba yi daal ne ko nag su ngeen demee na ngeen ko gor defar ko ba mu mel na mu war a mel que sëñ Mbacke Madina Góor gi ci Touba booba sanc bi la tudd fa la Cheikh Moustapha dajale doo ngay tarbiye yi Cheikh Amadou Bachir rakkam ak si way jur sëñ Muntaxa mu ne ko ñaanal ma ñii dama leen di yabal fi barab wax na ne bi leen sëñ Bachir di ñaanal sëñ Moussa ne tël ne ko xanaa Bachir ñii da leen di fagul wa suuf adduna mu ne ko wax dañ leen koy ñaanalaal ndax ñu mën a jekku digal yi Cheikh Moussa ne tëf ne ko ñii lañu ñu waxante ak man ku ko waxante te nii dëgg ci yow alali adduna keroog garab doy na la ci ne leen dugg leen dem ba ñuy ñëw Taïf nag sëñ Mor Seck lañ fanaan ci wetu diggiñ gii ci wetu bay la ñu xëyee nag ca talaata ja la fii Taïf nekk tey ñu gor dëkk bi ci diiru fukki fan ak juróom benn ba mu mel ni mu war a mel bi nga xam ne gor bi àgg àgg na ku ñuy wax sëñ Cheikh Diop Dieng moo ñëw wax si ko Cheikh Modou Moustapha Mbacké ne ko liggéey ba àgg na Cheikh Moustapha daal leen sant gërëm leen Cheikh Moustapha daal di fi fanaan si bisu àllarbay kare la fi jëkk a ñëw keroog ba muy ñëw wax nañ ko ne xanaa xam bis mi nga génn jaan sax du ko génn ci kanam mu ne leen Modou Moustapha du jaan jaan du bi mu fi ñëwé nak ba fanaan fi ba seddi alxamis rakkam ji Cheikh Amadou Bachir ak Cheikh Amadou Fadal mi top ci mom ak Serigne Mbacke Bousso ak serigne Moulay Bousso ñu ñëw fi fi tay seet serigne sëñ Modou bi ñu ñëwé nak seet si ko ba nopi nak Serigne fallu laaj Cheikh Moustapha barab bi ñu mu tudd Cheikh Moustapha ne ko saa ya ko xoolee de ndar la may nuyu barab bi kat yaay bàyyam doom ji tudd ko sëñ Fallou ni ñu ko xamé won ci mëna way xam ne fu ko way fekk day cuuri ko rek bu jar muy xool baax mu daal di ñaan ne yaa taifan yaxsha nawaiba dahrihi luzbil xalifati mustafa fi taif daal di tudde naa ko taif ne yow mi ragal musiba jamono tànk-tànki jamono demal wéeru ca Seex Mustafa làqu ca moom ca dëkkam bi ñu naan taif soo ko defee da nga mucc ci musiba yi ak tànk-tànk yi sëñ ak Mbàkke def ci bay bi ci dëkk bi ne ko zurnaaka naqi rahmata rahmani min xataraati bahri xusuusika almutalaatifi laa zilta fii diin ilaahi mujaddida kullal maadi daa'iman fii taa'ir mu ne ko noo ngi lay siyaare tey sàkku yërmande sunu borom ji nga xam ne dana bàyyi ko ci sa géejug may gi nga jagoo ci sa ñeewante mosoo dañ yow Seex Saad ab yeesalkat sang nga diine it ba mel nañu ko bàyyee woon nga sotti ko parfum yoo gën a rafet yoo gën a lu bokkul ci diine ji génne nga ko lu ca bokkul dugal nga ko ci noonu la ko defee ngir gañ a waaye am naa kenn ku ne bayit bi nga wax ci dëkk bii di Taïf waaye ba mu ko sañceel wax na ne man moo Modou Moustapha day dëkk bii di Taïf lépp lu ma xam mbaa ma am ko mbaa ma man ko dinaa ko def ci barab bii di Taïf te yàlla suñu borom nag teel damaa dimbali sama bëgg daana wax ne de bépp yëngu bu ngeen dégg ci yoon yëngu ba rëy rëy te seegu Taïf teppi ko du wees waaye lu mu sew sew tax ñëwaat dinañ ci gën a xuus mais liñ ci jot a wax li nga ci jot a wax bu sukkandikoo ci li nga jot a wax mooy dëkk la boo xam ne nii mën nañ ne dëkkub xéewal la dëkkub rawlu la ndax ni nga ko waxee da koo sanc wala am na ku waxoon ne képp koo xam ne nii bëgg nga mucc ci euh, balaa yi ak musiba yi demal ci Taïf weeru ci Cheikh Mouhamadul Moustapha bi ñu goree Taïf sanc ko ci ndigal Cheikhul Khadim mu def ko moom Cheikh Mouhamadul Moustapha lan moo taxoon dëgg-dëgg objectif bi mu sanc dëkk bu tedd bi di Taïf sëriñ Moussa Karim ñu ngi koy sañ ci fekk na sëriñ Touba wàccub liggéey Cheikh Moustapha moo am initiative boppam xam ne mënut a liggéeyloo ay baayam ak i maamam sëñ Touba la ko yàlla jagleel moom rek la ko jagleel kon faaw mu créer beneen méthode liggéey tax nag mu sañ ci dëkk bii di Taïf di fi bay ay tool yi àllarba ngir taxawal jumaay Touba ji kon objectif bi mooy taxawal jumaay tay Touba taxawal jumaay Touba jooju rek mu sañcoon fii ngir bay fi ay tool yi àllarba ak taalibe ko yàlla boole. seex si fi wër yëpp dañ daan ñëw fii di bay tool bi muy benn sëñ Mor Seck Ridial sëñ Madiba Silla sëñ Fallou Sarr sëñ Madou Lomberi sëñ Mbaye Fallou ñoom ñëpp lu ca ñore suñu masaan jaay boole ko seen i ñaq ak seen i sas def ko ci liggéey bi kon dëkk bi kon objectif sanc bi kon mooy jaamu yàlla ak liggéey ndax tabax jumaa moom jaamu yàlla bay fi ay tool ak liggéey bi kon la taxoon suñu borom indi ko kaw suuf moom da koo matale muy jaamu yàlla ak liggéey ngir taxawal jumaa jumaa ji jee te jumaa ji kenn umbuloon na sëñ Touba ak bëgg ma ndax waxoon na Cheikh Moustapha ne ko juróom-ñett yu taxoon sama borom indi yi jëf naa juróom-ñaari mu de sama lenn képp muy sama jumaa yi lu koy taxa a am limal ko juróom-ñett ya ne ko laa ilaha illallah làq naa wóor ma jëf naa la ca war muhammadu rasulullahi làq naa wóor ma jëf naa la ca war al anbiya wal mursaluuna làq naa si yéen jëf la ca war daane wa sahabatu wal awliya wala maalu amiroon làq si la ca wal islaamu diin laa ne parce que leen ne képp sama jumaa lu ko tax aju si amus faa nga ñëw fii nag sanc barab bii ngir loolu sëñ Fallou sax bi mu ko laajee ñëw fii fanaan fi ne ko lu tax nga sanc ko mu ne ko lu fi ñor ma def ko ci liggéey bee dafa dem moom it sanc dëkk bu ñuy wax Madina booba gii ci boori ko loxan ne ko may itam lu ci ñoree ma jox la kundikoo itam ci documentaire wala gëstu yooyu ñu doon def laataa màggal gi ci dëkk yu bëri yoo xamante ni itam sanc nañ ko mu wër Taïf euh, ci ndigalal Cheikh Modou Moustapha benn objectif bi la woon muy bay ay tooli alarba di ko yóbbu ca jumaay ja euh, comme noonu mu ko waxee léegi itam euh, wéetu ci ndax Cheikh Mouhamadul Fadal dëkk boobee moo sanc itam ngir liggéey jumaay ji kon yaakaar naa ne Cheikh Modou Moustapha mën na ne tey jii.

nga xam ne boobu ab tiir rek a defee mu fi seer fee Cheikh Abdourahmane nekk dañ ko fay ziyaare foofu la sëñ Cheikh toogoon wax ak donga ye wax ju rëy ji bi mu wutoo sëñ Moussa Kane ñett téeméeri donga ak fanweer ak ñett mu ne leen jërëjëf jëf li fi newoon jóge fi muy lu baax lu baax nag da dul doy waaye kon yéen li ngeen defoon ci lu baax dana doy ne leen Cheikh Moustapha mi ngeen nekkaloon gërëm na leen yàlla mi taxoon ngeen nekk moom gërëm na leen man mi ko wutit gërëm naa leen sëñ Cheikh ne leen yëg naa nag coow yeeg coono yeeg kër kër ji waaye ne da ngeen di dénkaani dong am dencaaneel ma képp nag man Cheikh Mbacke kenn du ci jëluma soo saw daal di ko jël mhm. mooy li ñu koy jox ko ndénkaan dong mu ne waaye ëllëg fa nu jëm ci pém yàlla bu sëñ Tuubaa jàllee Cheikh Moustapha jàll ña ngeen fa doon dénk a doy kon moo fi def tabax waaye it moo fi def forage bi jàkke jii ci biir itam moo ko yëkkati defar ko ba mel nii mu mel jàkka jii fi la Cheikh Momadou Fadel jiitee woon sëñ Moussa Karim ñeent fukki julli ci benn waxtu kon loolu lu doy waar mhm. te sëñ Moussa bu julli ko doxal jiite julli gi sëñ Fallou am loolu ne boo ma ko ma dox ci kanam jiite julli soo ma ko mënul du ma ko def ko lu ma doon sëñ Fallou ne ko soo manee su ma jiitee julli képp ku bokk ci julli gi yàlla sama borom ko dootu ko topp dox ci kanam jiite sëñ Moussa ko maa la ci defal Fallou soo jiitee ba noppi ku bokk ci julli gi julli gu mbokkati yàlla sama borom jégal ñoom Cheikh Abdoul Khadir bu ko masaan nettali naan julli woogee bokkoon naa ci tey maa imaamu kullu murid loolu yàgg na ko nett fii ci Tuubaa wax ji audio yi mi ngi fi ak son yi kon Serigne Cheikh moo fi def it école français yi bañ koy contre ba ñuy gëstu la ñu joxoon daf ne woon ku jàngu tubaab ab gardien sax doo ko mën a doon fii école yi 69 ñi ci njëkk a jàng ñëpp moo leen doon fayal moo doon jël xaalis boppam di leen fayal waaye ñi njëkk a jaar ñëpp ami place ñëpp la yàlla suturaal tey Baye Bass Diop bi daf daal ma naan man mi ci gën a néew doon ab vétérinaire sama soxlay adduna diisuma ko kenn sëñ Cheikh amel moom lépp lu ma sa laal barke la ci sax mu biir école arabe yi moo ko fi réalisé moo xam ne ku ci duggal sa doom moo ko ñoo bokk at waxoon ne ku ci sa doom ba mu jàngal ko bismillah ma rahim jéggal nañ juróom benn yow mi ko dugal di bàyyam jéggal nañ la yow ak sa ndek sa baay oustaz bi ko jàngal jéggal nañ ko moom la yemal bàyyam kon Serigne Cheikh ne fi daf ñu ko doon lim waaye li njëkk a mooy indi xam-xam ndax néew nit ki buy dund te amul xam-xam sëñ Cheikh nee na ku ñu tëj ci gaal nga yàggul yàgg yàgg rek ci benn ruq ngay dund sa dund ngay mujj rek éliminé jërëjëf sëriñ Cheikh Diop Taïf yéen ci màggal gu am solo bi nga xam ne ni wala ci bis bi nga xam ne ni bisu ñaan la ñu ciy fàttaliku sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ak mbooleem ñi nga xam ne ni rek ñoom la bokkal Cheikh Madul Moustapha ak mbooleem julliti ak taalibe yi di leen euh, fàttali nag ne incha allah rabbi lépp lu fi am rek ngeen man koo dundandoo ak ñun ci temps réel. waaye Serigne Cheikh xam naa laaj bi mujj mooy euh, Taïf comme noon nga ko waxee ginnaaw bi ko Cheikh Modou Moustapha sancee te la taxan mu sanc ko muy liggéeyal jumaa ji euh, sa joxe ñu sanc yeneen dëkk yu ko wër di def loolu ñuy def fii ci Taïf Serigne Cheikh ñoo def ci réalisation yi am solo yooyu ñu gis ne Taïf fi mu ne nii nekk na dëkk boo xam ne nii méngoo na ak jamono doon na ab commune. ba lépp li nga xam ne nii xëy na ñu ngi koy gis yeneen dëkk ñu ngi koy ñu ngi ko fiy gis ñu bëgg na am benn laaj boo xam ne nii ndax ndono lool nga xam ne nii moom la fi Serigne Modou Moustapha bàyyi woon Serigne Cheikh bàyyi ko fi muy bàyyi ay toole àllarba di ko yóbbu jumaa ji ndax loolu mu ngi continuer ba tey ak fii jamono toll ndax ci beneen forme lañ koy defee waaw wala déet. toole àllarba yooyu ba léegi nit ngi koy wéyal Cheikh Moustapha nag ba mu ko sañcee daf daan ne bu nee tool àllarba bi àllarba la nee na nga am pas-pasu dem Cheikh Moustapha ne ubbi leen sa bunti àjjana bis bu jotee nga jël ko ba àgg bàyyi ci dugg gi sa këru àjjana kon loolu la nga ciy dégg mooy rëyaayu jumaa ji mu amee woon ndigal ci la jëloon décision dig ci taalibe yi lu rëy loolu waaye tool yi ba nage ni ñu ngi wéy ñëw formé daayira ba nage ni ñi ngi ci laaj ay àll ba tey ñu koy bay ba nage ni waaye li nga wax nag Cheikh Moustapha dafa ñaanoon sëñ Fallou moo ñaanoon ci dëkk bi fu waaye jógee ci àddina ñëw Taïf doo woon gannaaw dëkk bi te soxla sa fajoo sëñ Mbacke Mouhamed nag jàmbaar li nga xam ne ñun ñëpp moo ñu tax a mel nii nu bi ko xaadim si la jàngalee fii bis muy lii ma wax nii leeral ko sëñ Mbàkke dana ko ñaanu sa amam fallu ko ci man Muhammad nii la nangu bëgguma fay nekk nag di ñuy jàng bay di rek man damaa fas yéene ku ñëw Taïf doo koon gannaaw soxna too am na kër gum sañcoon fii ci gan saalum jumaa ji mi ngi kër ko defoon ngir fii day fees mujj mu sañc pale bi ba mujj néegu boppam day fees ak gan couloir da ci dugal mat laa ngir gan ñi te ku ne soxlaa la yaa ngi loolu boo fi ñëwee doo woon gannaaw Taïf sëñ sa soxla kon loolee continuité bu am solo boo xam ne dañ ko doon def loolee itam noonu ko ci ñaanal bu baax waaye sëñ Mohamed itam daana wax fekk boobu ay ndar ndar ku ñuy wax Omar Diosi xarit Ousmane Ngom la def na France 30 dikk dikki fii visité chantier bi ba àggal chantier dafa jàppoon ne bi mu visité rafetaay bi moom ki ko moom bu génnee xeeti manto lay coon façon ngi notti yooyu sëñ Mohamed génn sol mayu bu woyof ne ci yàlla mu ne mu ne xaalim si la kii ma gis moom moom bërëb bi mu ne ko am naa mbett bi mu waxtaani sëñ bi ba àggal sëñ Mbàkke dana ko lii nga gis ak rafetaay bépp gàttanu ñaanu sa amam Cheikh Moustapha nga ndax daa ñaanu lépp lu am ci Ndar ak Ndakaaru nañ koy gis ci tayif gi mu ne ko lii ma def fii lépp nag gàttandoo ko ñaan googee xam ne lu tekki te baax te rafet ko ma rawatee na ko bokk ci sëñ moo tax ma fi def tax ba ba rafet yi te Cheikh Moustapha ba mu fiy xalootu foofu laay jeexale kàddu dafa ñaanoon boroomam ne ko yaa rabbi xaqi maa rajatu minka wal tak fi na idaa ma an wa danka ba loolu la ñaane woon maa ngi ñaan dëkk bii di Taïf li ma fi yaakaar man Cheikh Moustapha nga defal ko nee ba mu demee ba julli fajar tëye kursam ne gàmmu Cheikh Moustapha ne ñu woon ko Taïf ni muy mel ëllëg jumaa jeeg lamp yeeg fajukaay yeeg lépp tey tukkikat yii ñu ngi def association jëmee Taïf kanam ñi ngi dëgg jën nañ fi daaw téeméeri lamp hôpital bi ñu jënd ambulance bi kuñ fi jàll leen daambaa Tuubaa jànnatu tukkikat yi ñoo def loolu ku fi faatu la lay sàngeeg ñee defar barab tukkikat yi jàngal la kaamil jaaree ku lépp ñi di bokk ci dëkk bi ñoo koy def def fi avancement ba ci machine échographe ñoo ko fi indi kon ñoom xaaruñu état xaaruñu dara waaye ñoom lépp nag dëggal ñaanu si Moussa Gueye képp kon ñoo ngi leen di sant di leen gërëm. Serigne Cheikh ngeen jëf bokk yi nga xam ne itam yéen ñu ngi doon seetaan moo moo doonoon euh, plateau spécial boo nga xam ne nii doon ko amal ci biir Taïf doon wax nag ci taarixu Taïf lan moo taxoon ñu sànc ko ñu àndoon ci ak Serigne Cheikh Diop Taïf waaye kon Taïf a ngi noonu di dëkku bu barkeel di dëkk bu tedd boo xam ne nii tey li ñu fi dajale muy fàttaliku kenn ci jàmbaar yi nga xam ne nii def nañ fi ay réalisation yu am solo muy Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma yàlla nañ suñu borom yokk ay leeram ak mbooleem njabootuk Cheikh Madul Moustapha ak nga xam ne ni ñoo jiitu ak mbooleem julliti ak taalibe yi kon euh, lii nag nekk jataay boo xam ne ni dinañ ko yaatal ci ay bërëb yu fasantikoo waaye ànd ci ak collaboration waa section Taïf wilaya ñu ngi leen di jaajëfal ba beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf